matuk jumaa ji da nga ko fekke maag yow dang ne peleg wér ceerno dang ne ke caw bay Moodu Faal na ko bu faatu woon tey rakkam de lay indi mu wutu tey tey ndax yaa ma moom sëñ Fallu maag lu ma fi jur yow bu la neexoon tey nga jaay nu faya bar ma wax la sëñ Ousmane Bousso tawam ba nga xam ni sëñ Falloo juboog borom ba ma wax la sëñ Ousmane bu soog tawam ba nga xam ne sëñ Fallou jubóog borom ba mbooloo dikkoon ci wàllu réew mi mépp ku nekk am ndaw ci tariixa yépp ñu ñëw ci sëñ Fallou di ñaan lu ab taw mu ne na ngeen dellu balaa timis mu taw ñu toog ba siiséer asamaan si wuriwul ba seexu Ousmane jàq nag te jaaxle lool juboo na mag yàlla juboog mikail taw bii da ngeen ci xuus da ngeen wag seeni yaal sëñ Fallu daal ne lii ma wax osmaan du kaf booy tàbbi tey jii sa kër dañ lay góof ba mu ñibbee këram keroog des koo roof ca kaw billahi keroog daa jooy baloof ne bala maa faj kenn saw yaram féex mbay ci sawewu tànk wala fi yee ko wax moo tax ba sëñ Moodu busoo ma wuutu maay ndox ma def ko seebu nag muy póotu xam naa ni xar baax du lu ñuy donnante wante li seen defin ya moo jegente xam naa ni xar baax du lu ñuy donnante wante li seen defin ya moo jegente xam nga li tax mu am xadaa ulhaaji da koo jëndoon fa sunu baay alhaaji ma wax la njëg ak ñaata nu mu demee ak kañ la woon nga xam ni sëñ moo doo ñeme ab bis la woon sëñ moo du xëy si baayam ngir bëggu koo jox loxo sàkku ñaanam mu ne loxo kese bul ma ko jox jekkil ne tey fëllu mi gëtëm yi xonq cur nii ngir aajo jum am muy juróom-ñett fukk ci ay junni saa xëy ñuul tey ko ko sëñ Moodu daal ne ko ma dem te delsi ab diir bu néew mu delsi bokk mbuusi andil ko limba ba mu mat mu wis ko te ni kat ñaari mali xëyewu ko la mu amoon lépp da ko jaay ba mu jeex jébbal ko sëñ Fallu bu koy fay kon du jeex la mu amoon lépp da koo jaay ba mu jeex jébbal ko sëñ Fallu bu koy fay kon du jeex jaay sew jiwoog sampe pepp ngir quatre cent mille lii dafa yombul kii jëfam du mën a niil sa bët bi xonq na nga ñëw weexal ko gisaane kat na ngeen weexal ko li annahul waana muarrif jaayis bi fi'likal yawma wa antal faayis lebal nga tey jii waaju xam boroomam takku mu fay mu daadi sut moroomam lebal nga tey jii waaju xam boroomam takku mu fay mu daadi sut moroomam andil ma tuuti suuf ma daat lay ñaanal fam ne bërét mu ne ko moodu toogal man fàllu mii lu na yar ci sam sunu borom danaan ma way lu waxal def naa ci yow lu kenn dul mën a dindi yow lu la neex defal lu neexul nga dindi def naa ci yow lu kenn dul mën a dindi yow lu la neex defal lu neexul nga dindi li yomb naa gëm tey ku dem Brescia walla nga dem Madrid ba dem Valencia xam ne ko am séjour ci barab tey pàkkar sëñ Modou Bousso war na la tey sëñ Modou Bousso jang ma doon donoom ja donn na baayam ba sigal ndayam ja sëñ Fallu lum naa loon lu nekk def na ko fu mu defoon sang fu ne tabax na ko lamin wayal muhammadul aminu alaaji baaramun la def lu joonu lamin wayal muhammadul aminu allaaji baara mun la def lu joonu ngir ñaari wàlli yi ñoo ko séq lii tax mu doon garab gu sax gu sàqi fa lu ma daa joxañ mu taw ci jaww ji baara ma daa bindi araf ci jaww ji sëñ fallu kenn du sikk ak wilaayaam sëñ baara kenn du sikk ay karaamaam ne fallu yaa ma jëkka tudde nag doom ci mbokk gi danaa ko def ni sama doom danaa ko yor danaa ko aar danaa ko yiir danaa ko def ëmbër mu wecc fukki mbër lii tax ba sëñ Fallu fu mu masaa jëm danaa na baara jiitu nekk ca kanam Cheikh Abdou Khadir musli yéeg min bar bi te àndul ak baara mu yor dokkam bi ñaar fukki at ak ñett lii duy caaxaan yow ndey ji seex nga yaa ngi tëdde njaaxaan sëriñ abo baraka mbàkke maam say faal yaa fii sëriñ fëllu ba tey di seex rafaal sëriñ abo mbàkke baraka maam say faal yaa fii sëriñ fëllu ba tey di seex rafaal yàlla na nga wér ci safan wi gudd waaju la bañ yàlla na xëy ne koddu sa ay gi yàlla na yàgg neex am jàmm te yàlla boole la njaboot gi sàmm sa ay gi yàlla na yàgg neex am jàmm te yàlla boole la njaboot gi sàmm am nga teraanga am nga ngor wàkkiilu ñaawoo dafoo réeru te dañ laa wóolu jàmbaar nga nangu ngaa liggéey nangoo joxe jaambur nga jaamukat nga doo wor doo naxe téemaa taxawlu fii te ñaanat njëggal ci barke mustawaak ñu baax ñamu àndal barkeb sëriñ bi ak ña sax ci fun mën a jëm nan fa dajee ci xéewalam yàlla na nu buur sàmm te nu diina ci barke sëñ Mbàkke borom Madina sëhru ramadaana ma jublu kooka fii laylatil jumaati jumaati kookaay kooka man am naa yaqin si fëllu moo di kooka tey ëllëg te kooka moom di kooka rafet na am mbay bay na toolub kooka kooka xëyal kooka mu gontal kooka raxmatu naa faadilu naa ciy kooka salla ali ileewu barkeb kooka malim fi ci jikkoom lu néew ciy kooka mbaax gaa dajoon jamono naw naa kooka la sañ-sañ wala jubóog kay kooka allah fa lu mee ko am doon kooka am na cëram ba noppi ànd ak kooka tërbiyu sol karaati kooka nan xam ni seex bamba di kooka seex mustawa kooka fëlii kooka subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifaan wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin maam jaara nu mat royukaay moo man góor moo sellal te moo jara taas moo seen mbaar maam jaara nu mat royukaay moo man góor moo sellal te moo jara taas moo seen mbaar maam jaara nu mat royukaay moo man góor moo sellal te moo jara taas moo seen mboor moo rii ngor te moo doy waar moo am xaas jégjéb xandeer lañuy boot moo am or am diine rafet melokaan yar say doom am jàmm sawarta tooñ raw sab tuur baalii xir-xirug asamaan daawul tiit sang njàmbaaru tax nu am daam yow yaa foor baalee xër-xërug asamaan daawul tiit sang njàmbaara tax nu am daam yow yaa foor sang maandoo waral borom saam ak maam daam def jant yu fekk raw ay weer sang maandoo waral borom saam ak maam daam def jant yu fekk dunyaa ay weer am xaayaan la yor tabu géej kuy taataan ay waameem fu nekk lay taa janja bun sangoy nelaw ma ngay jur ay rakkaam bun mbuuyu ku ney seral naan yaa ngay woor nee nan dangay defar maam ay wantaay bun mbuuyu nga jox dëkkandoo yi sëñ doo boddee te yow dongaayoo yaa sotti rafet taxawaay yaa laa say jagle ma def werekaan yaa xam daam yaa gën cib muridatu yaa mandig leer say jagle waral poroxaan ñéppay naan am nañ teen ami taraawo ñuy bay noor am jàkkaak jumaa jabay am ay koom jéggey waa si jël tuqakuur te passeport jéeg dootul jësi jukki baag xëy ci teen biis xelli lañuy tànqeeg naan féppay lóor dun soqeeti kànnang ak aal dog bun sóor yow yaa tax masin yëfay riir kuur yey dóor màggal gaa ngi riir bi daan ñëw nañ daaw réew yéppay war yi fafal naaw Espagne ker màggal gaa ngi réew yi bii daan ñëw nuñ daaw réew yéppay war yi fafal naaw yaa xotti woon ji ko daay def ci baag yaa rékki sa xeeti jox ma mor yaa mat ndey te mat baay yaa mat maam yaa mat waay matuk xarit maam yaa mat géer say jaglee waral ba Tuuba def am réew réew maa ngoogu sëy sëtëy toog ay buur yaa nampal ki man ci duniyaa yow sam soow moo nampal ñangor borom soowum leer yaa nampal ki man ci duniyaa yow sam soow moo nampal ñangor gorom leer soom leer yaay cër ngor jigéen ñawoon ndeer yaay xar baax waa mbàkkee fi te bi tey ans dun jël ndeer yaay cër ngor jigéen ñawoon ndeer ñoom yaay sin boobu lay wax talaatay ndeer mas ngeen ko dégg talaatay ndeer ku ne dégg na ko ok yaay cër ngor jigéen ñawoon ndeer yaay xar baax waa Mbàkke fi tem bi tayans dun jël ndeer seetal tey li xew poroxaan ñéppay naan kaas yaa ngoy wëndeelu tey for fuur tey fees sun yeewoo ba soxnay saaf ñee ngay xéem yor waa si jëntuur waa sintóor tey baasee xew ak meew démboo njaay ndën la ndaase ñaxat mbaar mbuumum nduur jën yaa ngi bu ñuy tegu ceeb saf kuy naaf roof sompaat tëmbal jay coof ñuy fiiriir jën yaa ngi bu ñuy tegu ceeb saf kuy naaf roof sompaat tëmbal jay coof ñuy fiiriir ndar jaa ngi fa waa poroxaan am nañ coof ak sompaat ya fay jalaañoo ñëwuñ buur léeg-léeg sax ñu gon preskeek dat koy roof pët pët pët ginaar ya ñuy saaf def ci reer xéewal gaa ngi ñuy gundaandaat njar ay meew wuuteeg fan ya ñuy añeb laax tey yey wóor xéewal gaa ngi nuy gundaandaat njar ay meew wuuteeg fan ya ñuy añeb laax te yeey wóor terrasse yaa ngi tey ami saal ak ay sens wuuteeg jànk yañ xambeew ndóor mbaa dóor dóor gas yaa ngoogu bu ñu rusee sóor añ yi teel wuuteeg fan ya ñuy xambeew ndéef añ seen kër seetal démb cem su daa sol tërgaal tey cuub yaa ngi ak mbaseeriis ak jasneer seetal démb cem su daawaaj sol tey cuub yaa ngi ak mbaseeriis ak jasneer seetal démb cem su daawaaj sol tey cuub yaa ngi ak mbaseeriis ak jasneer buur yàlla ci say doom leer ak mbóot xut ngi ci biir la daal dooley góor mammoor jaara kuy wutum mbaax doy nag mbaax ngir baaxin wañuy nowe baax moo cay góor maam bambay sëriñ bu doy waar mooy kii moo jaaxal rijaalu soo daan góor maam bambay sëriñ bu doy waar mooy kii moo jaaxal rijaalu sootaan góoroo góor bun seetee na muy defu gaay doy naa yéem bun aaloo mbëkki garab ñee dóoruy kuur ñee daanuy dëtëm ñulug ñee tokki taal am gaañoñ dañuy joxey jooy waaw góor jàppal nag ni may tegeb daaj taataan taa waambe ngi tawaame fum gaar far bekkoor buur yàlla tawal wala ngaan ngooxi ngoox mbottay gor bu dégg ba deetaa muy kañ buur buur yàlla tawal wala ngaan ngooxi ngoox mbottay ngor bu dégg ba deetaa muy kañ buur déetil man di bàyyi saaw taas ndax man baas maa ngi tey gariti Muusa njàmmey góor yaa muñ ñàkk yow muñu taal muñ aw naaj say gànjar nga tekki woon jaay yokkeb sóor yaa mu ñàkk yow muñu taal muñ aw naaj say gànjar nga tekki woon jaay yokkeb sóor yaa jël ngor ci saw turandoo jël cag mbaax moo gétteen jigéeni duniyaa set ciw taar yaa jël ngor ci saw turandoo jël cag mbaax yaa gétteen jigéeni duniyaa set ciw taar yow siisoo bagaan ya ngay taaj ak say bol moo reggal njabootu mammoor rëy ngëb sóor yaa wuuteeg jigéenu tey jii say muuraay xaarul sedd mbaate am njaal mbaaw tàngoor yaay xaayaan bëggi jindaayaan daa taataan yaa gàcceel nawet dëggantaan gàcceel noor yaay xaayaan bëggi jindaayaan daa taataan yaa gàcceel nawet dëggantaan gàcceel noor yàllaa fay fayaale sam réew ñéppay noos wax waa ngi taw nawet tooy taw ab noor moom toolub wilaaya bam ruuj tax cay mbóot meññan ma saxal fi ñun leer bayitil joor moom sellal ga toseb tool tax muy naat tax bennam bigoo bi milliard barke wóor mam ndokul damul ku am daam am ngaw kaañ yaa jam njong la ñépp doon diir yaa rëy muur maam ndokkul damul ku am daam am ngaw kaañ yaa jam njong la ñépp doon diir yaa rëy muur muur loo nan ku jekk muuraay nenan saay maam sooyoo te sooyu law gaay yaa man géer boo teeloon di yaayi muusaa mbaa isaa mbaa yaasin mi gétti jub taar góoroo góor yow yéesoo yoonan yowoon yaay yaay xar baax ab nasraan du jàggi say doom looloo wóor yow Yeesu yoneen yowoon yaay yaay xar baax ab nasaraan du jàggi say doom looloo wóor seetal nag ca lañ fexeel daam nag wuy naaw mes mentañ ba tey lañuy laaj mooy fum jaar gaynde ndar gawoon ca lisra faf dim kuuy nooy nepp ne am talaa biir bambay góor gaynde ndar gawoon calis raa faf dim kuuy nooy nepp ne am talaa biir bambay góor jeewal ne gisul kemum daam kaw ak suuf teewoon sax ñu laaj lu góor nóor gis bay diir jeewal ne gisul kemam daam kaw ak suuf teewoon sax ñu laaj lu góor nóor gis bay diir ay soldaar yu guddi mee ñoo dar daam seen xef rek xajul ci soldaar yooyu góor nóor góor nóor sax du góor amul nóor xam ti Seex Bamba góor gu mat góor mooy góor nóor góor nóor sax du góor amul nóor xam ti leer Seex Bamba góor gu man góor mooy góor nóor góor nóor sax góor amul nóor xam ti leer seex bàmbaa góor gu man góor mooy góor nóor bun ke doomu wétt man daam doy nam koom def la waraat lay góor nóor ban génnee jëmmam ba wiir wiir teg ci il bañ jël see ñu fekk daam toog lay góor nóor ban génnee mu julli kaw déeg sëlmal toog def lawraat ya dil toog lay góor nóor ban génnee mu julli kaw géej sëlmal toog def lawraat ya dil siwaat lay góor nóor ban génnee gasal ko am leeñ dal koy suul ban delloo ñu fekk ndam toog lay góor nóor ban yóbboo jëmmam ba wir wiir teg ci iil ban delloo ñu fekk daam toog lay góornóor ban diiree fetal ca kaw daam soqeendoo tëf tëf tëf batal tamit xool lay góornóor bañ ca kaw daam soqeendoo tëf tëf tëf bul sàkkal sëriñ bi ak maas xam ngeen muus yebtil gar te or du maasum ay xandeer ndax xam ngeen gar gar luy gar gar mooy gaynde waaw kay xam nga muus du maasum gaynde ah ngar waaw xam ngeen or du du maasum ay xandeer bul sàkkal sëriñ bi ak maas xam ngeen muus yëptil gar te or du maasum ay xandeer moo sempal te jekk ab taar kaaroo kaar ñuulul kukk xeesuloon daam daa xeereer niiw ak lekk niiwi naan lool buy reemuñ laajal regg nam def ak daam mbaayandoor niiw ay wax dënnam ba day riir buy sàbbaal sol turkeem ba foo ko seera day soomóor ay neppi la daa fi dalla suuf buy tooy ay karbat la daa fi dalla waxtu noor muur loonan ku jekk ay faas saf am naar tiñ gàttey na mi jateeg maar muurug leer jantam baa ngi dem ba njolloor ñëw leen gaaw ak baadaay palam tuma ndoor mbaa xelleer jantam baa ngi dem ba njolloor ñëw leen gaaw ak baadaay patam tu njolloor mbaa xelleer weer waa ngoogu fekk duniyaa duutul suux sun xol yeey ndobin nga def leen ay tóor tóor gaal gaa ngoogu moo ma mbeex ab tontoom mooy jaayante jébbuloo wóor mooy sàmkeer bul xëj géej te gaal kuy xëj géej ci tànkam te tabbiwul gaal day lap réer seex bambaa ngi yéegi naw gaay ñuy mbooloo sellal leen ñu far marok buur not ay góor seex bambaa ngi yéege naw gaay ñuy mboola sellal leen ñu far marok boor not ay góor ndamal daru ku mu nuy ram koo kay góor lampab yoon wi foofa lay ram bambay góor sëñ dam abdu ku mu nuy ram koo kay góor kay ramloo kasañ ci xabaan koo kay góor seex isaa ku muy nuy raam kookaay waay ku yewoon fa mbaabu fuñ boof kookaay góor sun keddoo ma wétt man daam doy koom Afrique yaa fi am juróom-ñaar ci sooroor suñ keddoo ma wétt man daam doy koom Afrique yaa fi am juróom-ñaar ci sooroor dootoo gis su mel ni Tuubaa am cim réew déedéet bul xiyaas maraxwaay cim njolloor baas xatmul jaloore mam dam duutul jeex mooy jàmbaar ja moo yeyoo taas moo seen mboor yàlla na suñ liggéey bi nekk soror yi nu bëgg mu mu yegg fa nu kawe suñu jor ci ay ngëneel liggéey bii nu sumb yàlla na sotti nu teewe ko te mboolem li nuy wut lépp fekk nu taawu ko liggéey bi nu sumb yàlla na sotti nu teewe ko te mboolem li nuy wut lépp fekk nu taawu ko liggéey bii nu sumb yàlla na sotti nu teewe ko te mboolem li nuy wut lépp fekk nu taawu ko ba ñuy jébbaley caabeem akay wax na mat na tey na fekk nu dab mboolem ku jiitu ba jiitu ko yaram yi na wér sun fan yi gudd nu yeex dem ba mu jufi mbég muy ñëwum ñu teewe ko taaw ko yaram yi ne wér sun fan yi gudd nu yeex dem ba mu jufi mbég muy ñëw ñu teewe ko taaw ko ma jóg wuti ndëndëm cant ak galenam ngërëm te tëggal sëriñ Tuuba ki xëy jox ma ab galan ma jóg wuti ndëndëm cant ak galenam ngërëm te tëggal sëriñ Tuuba ki xëy jox ma ab galaan wutal na ma ndomb ak tànk dolli na ma ab galaan tamay na ma ak keex ak njariñ sant naa ko man ku koy bañ du man mii waa ju koy ëyibal du man ku koy foña koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mii moo gën mépp ngir ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mii dal di jaamuy xërëm xaram te yàlla akub yonent daa la fi nekk kat te ñoo di sëriñ bii moo di ñoom it ku weddi fen te yàlla akub yonent daa la fi nekk kat te ñoo di sëriñ bii moo di ñoom it ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say biir da xaram te doo ab sëriñ doo ceddo ngir ceddo yaa la gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def wér mu nangu ko dénkaanay biram ay biram yéwén taabi yéefarit day nekk ci kéefëram bu wér di mooy mooy gu wér tey puuna kay naana kay seben li lee di këriñ lii moo di kéefër wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bamba moo fi man li lee di këriñ lii moo di kéefër wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bamba moo fi man murit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sawan bu bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la waan murit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa waan bu bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la waan xamal léegi yow wax ji te suubu ci am ngërëm ni yëkkat sa mbir jébbal ko am ndam amub galan alhamdulillahi sant na yàlla alhamdulillahi yàlla bam nu defee nu doon jullit rax ci doon waa kër borom tuuba alhamdulillahi alhamdulillahi sant nan yàlla bam nu defee nu doon jullit rax ci doon waa kër borom Touba lim bind daa bari rab yeeg bàyyi ma jinne yi mu def la ngay nit di jullit gëm borom Touba aar la la booleeg musal booleeg malaaka yu lay sàmm ci foo mën a jëm ngir fonk sëñ Touba mënoon na def siñeel mbaa gaynde walla petax lii lépp mooy nu nu def waa kër borom Tuuba deful nu daan fas te dun mbaam dun gëléem xalamal te sant buur yàlla santaat nag borom Tuuba laxal ko déglul sama waateeg walar dina xam ak baru min xalqi naasin yéem nañoñ Tuuba lim def nga doon ko kawem gaa tax mun naa wala xat mag naa karam naa banni aadam borom tuuba lii kat yemoo ca nde doob yéefar te weddiwuloo xanaa mu def la ku yiw kuy gëm borom tuuba réyoo ku gëm bàmba doo rëy yàlla moo ko jago nga dellu mucc ci rëy yi santal borom tuuba boo xalamee nag yi ak xaar ak bëyëg lu mu doon ngay rey di lekk te doo bàkkaar yéem tuuba boo seetlu woon dëkk loo gis gis ca yàlla bu wér di teewlu màggam gi ak màggug borom tuuba amam gi moo tàmbaleewul fenn nag tayamul booleeg di jëf lu ko soob may kun borom tuuba lii kun fa yëkkoonu aji leer na naññ na ndemoo ko moom yow mi gëm yàllaa la sëñ tuuba amal la jàmmal la féexal may la leer ci sa xol muy leeru gëm yàlla yonen beeg borom tuuba ama bi nihmati rabbil arsi nag faadis te mooy di waxtaane xéewal te mooy di waxtaane xéewal gii di sëñ tuuba yàlla mi def yëfër ba mu koy def asab ji duum sële tuuti mu rek santal borom tuuba ñun daal dañuy sant Seex Bamba ka jëf ci ndigal ji mu jub ci siraat mooy yoon wu jëm Tuuba.